mbokk yi asalaamaaleykum jërë ngeen jëf ci ànd bi ak mi FM dal leen ak jàmm ci seen émission démb ak tay ni ko baaxoo dimanche bu jot ci euh, waxtu bi euh, tey nag dañoo delluwaat ci euh, mode télétravail ndax deuxième vague bi mooy contact loolu la ñu santaane ñu leen di gërëm ci ànd bi ak ñun am mbégte encore une fois dalal Abdou Khadre Gaye njiital EMAD ci plateau démb ak tay Abdou Khadre ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fatou xam naa ne guléet la ngay émission ci téléphone. waaye Covid baa ni demee <laughs> waaw waaw ni ñu jéem rek. alors niñ ko waxee ci bande-annonce bi Abdou Khadre li ñuy waxtaanee euh, mooy euh, suppression bu ndakaar bi nga xam ne fan yëpp mooy coow euh, li lay taal waxtaan wi loolu bokk na ci waaye itam. bokk mhm. na ci 19 décembre ni ngi ni démb ci atum 1987 la ñu tàmbali woon màggal téeméeri at ati Ndakaaru. di mhm. commune bi nga xam ne ñu ngi ko créé le 17 juin 1887 kon tey. Mhm. Dakar am na téeméeri at ak fanweer ak ñett. dañ ko fi jëlee euh, ñu dooree d'abord ci euh, euh, cosaanal ndakaaru la ko dalee ca lébu ga ndax for naa ci weewu béy ne dakaar gii ñu fi bëgg a jëlee am na lu ko lëkkale ak collectivité lébu gannaaw emaat gi nga jiite nag ci wàllu aada ak cosaan rawatina gu lébu gi lay yëngu ñu buggoon nga ñëwal ñu ci wàll woowu li lëkkale Dakar ak collectivité lébu. waaw xam nga ndakaaru bi fi lébu yi ñëwee sanc ko. ba li nga xamante ne moom la ñu xam ci dëkk Lebu yi nga xamante ne ñoo fi nekk tey taxaw booba la personnalité personnalité morale bi taxaw ndax suñu ñu nee ndakaaru ñu ne moom mooy dëkkaraw le pays refuge ndakaaru presqu'île du Cap-Vert bi yëpp ndakaaru la hmm. wante su ñu nee ndakaaru yem ci fukki penc ak ñaar yi lay joxar bi te fukki penc ak ñaar yooyu ñoom ñooy capitalu communauté Lébu am na tànk muy Ngor Wakaam Yoff am na village yi nga xamante ne ñoo nekk ci banlieue bi ñoom yëmbal ñoom mbaaw ñoom tëngéej ba nga dugg jandeer ba nga dem tubaab jalaaw soo jëlee presqu'île du Cap-Vert boobu yëpp ci cosaan dañ ko xaaj ñett ñeenti département muy jandeer jalaaw jégéej ak jëlëg ñeenti pàcc yooyu ñoom ñoo constituer le Grand Dakar bi presqu'île du cap mais soo ñëwee ci jëlëg da nga fa fekk tànk muy Ngor Wakaam Yoof nga fekk fa ndakaaru muy fukki penceex ñaar tey jii ndakaaru googu juróom benn penceex ña nga Dakar Plateau commune de Dakar Plateau juróom benn ya des ñu ngi ci commune Médina loolu ñu ngi fa nekk à partir de 1914 mais ba lébu yi ba mu xeex tase muy le premier village lébu au niveau de la tête de la presqu'île du Cap-Vert ñu mun ko jox xar bi tey ne ma ngi tolloo fa stade de amitié nekk ak la ko wër ba mu xeex tase en 1438 ñenn ñi dañu yéeg sanca yoof yoof jur ngor ak wakaam beneen groupe bi tas ñaari sous groupe benn groupe bi sos Soumbédioune mooy fa tefesi Soumbédioune nekk penc ba nekkoon ca guy gane woon biir maison de la euh, maison de la culture Douta Seck ñenn ñi samp sanc beeñ ñu nekk si jongante ak xuloo gi metti bu juddoo woon ca la tas bu xeex mais ba ñu dajee fële ci Pointe de Dakar ci la ñu sos fukki penc yi ak ñaar mais fàccam fukki penc ak ñaar yooyu jëflante nañu ak tubaab yi. Hmm. parce que en 1617 ba tubaab yi ñëwee booba fukki penc ak ñaar amagul ña nga woon beeñ Birane Meng moo jox autorisation tubaab bi ñu occuper béer muy gore hmm. ñu waxtaan ci seen yaatu ci seen mën gan. ci xam gi ñu xam ne suuf gi doomu aadama yépp ko bokk ci la ñu joxe autorisation hollandais yi ne leen dëkk leen béer parce que béer kenn dëkku fa woon mais mool yi ñoo fa doon teer di fa defar seeni gaal di fa weer seeni géej ñu jox autorisation tubaab yi ñu dëkk fa ba tubaab yi nekkee foofu di joxante gore ndax jaar na ci loxo hollandais yi dem ci loxo anglais yi delluwaat ci hollandais yi ñëwaat ci loxo tubaab yi ñu koy joxante noonu ba keroog tubaab yi ñëw fa mujjee mais tubaab yi nga xamante ne ñoo fa mujjee signé nañu ñeenti traité ak ndakaaru sous la gouvernance du Serigne ndakaaru Eliman Diol mais su amee benn dëkk bu nekk entité morale bu ñu reconnaître mu nekk une institution pour mu mën a signe traité ak nawleem ba nekk bitim réew te nawle boobu di la république française lan moo tax c'est parce que am na personnalité morale bu ñu reconnaître muy ndakaaru ba tey jii képp ku dëkk ndakaar suñu la nee ndakaaru yem ci mooy fukki penc yeex ñaar muy capitalu collectivité communauté lébu de Dakar mm. en ce moment muy le grand Dakar qui la presqu'île du Cap-Vert Dakar googu di dem di dem ci kilifteefu lébu yi mu nekk une république théocratique tubaab bi ñoo ko reconnaître bind ko mhm. ne la république théocratique lébu de Dakar muy dem di jëflante tubaab yi am indépendance ba 1857 le tubaab bi samp mu nekk commune de plein exercice kañ sous le règne du blanc 1887 commune boobu di dem di dem di dem ba tey jii suñ ñu nee dañu bëgg a supprimer Dakar dañuy dañuy am njaaxle dañuy am jaaxle te Dakar googu ñu bëgg supprimer sax ñun dañ ko xeeb parce que Dakar boobu mu ngi ci département de Dakar dix-neuf communes yi. Mm-hmm. Guédiawaye demal boppam pikin demal boppam ci tàngu Mamadou Diop amoon na la communauté urbaine de Dakar mm. communauté urbaine boobu di doxal. nekk une personalité morale ba keroog ña koy tas kon li ñu yaakaaroon mooy dañuy gën a dooleel Dakar dañuy gën a yaatal dakaar dañuy dellu ca Dakar gu njëkk ga mais suñu nee tey dañuy supprimer dakaar en tant que ville alors là ça pose problème moo tax képp kuy doomu Dakar képp kuy doomi Sénégal xam ne Ndakaaru nekk na capitale de l'Afrique occidentale française Dakaaru nekk na capitale de la fédération du Mali soog a nekk capitale de la république du Sénégal indépendant Dakar googu dañ ko war sàmm dañ ko war aar pour nag mu mën a jëflanteex moroomu ville yi nekk ci àddina bi parce que en tant que ville ci ngay defee coopération ak yeneen villes yi su ñu nee les villes du monde se retrouvent il faut que tu sois ville pour mën a bokk ci jotaay boobu. meeru Ndakaaru bi fi nekkoon Khalifa Sall daan na ci dem lu bare. mais attends tey su ñu nee jeu euh, les jeux de jeux yi ñuy préparé les jeux de la jeunesse. Mhm. yi ñu bëgg def dakaar kan moo signé convention bi. c'est Dakar en tant que ville. Mhm. moo nekk en coopération ak naatangoo ville mi mhm. mu signé convention ne dinaa recevoir les JO en telle année. en tant que ville la ko mën a def. kon boog tey ñu toogee ñu ne ñu dañuy supprimer la ville de Dakar. munuñ ci am lu dul njàqare munuñ ci am lu dul tiis di wax ne c'est une erreur historique ba nga xamante ne war nañu fexe ba bañ ci àgg mais yaakaar naa ne duñ ci àgg ndax yaakaar naa ne ñi ñuy jiite duñu ay dof dañuy xalaat te dinañu déglu seen askan parce que nag ndakaaru euh, dafa am borom suñu ne borom ndakaaru ci suñu aada ak suñu cosaan dëkk bu ne ña ko sanc ñoo ko moom ña fa jiitu ñoo ko moom ñoom la ñuy tuddee borom dëkk bi saa di da ngeen di yor seen yat ne ku ñu neex mooy dugg ku ñu neex mooy génn wante dañ leen koy jox ci wàllu aada ak cosaan dëkk bi am yeneen boroom mooy ñi nga xamante ne ñoo ko dëkkee sanc ñu ko wante fa lañu juddoo fa la ñu màggee ñi fi dëkk ci moom la ñuy wax ñi fi ña fa fekk baax ak ña fa baax fekk su ñu nekkee sous un régime démocratique mu am xalaat boo am en tant que kilifa réew en tant que buur en tant que gouvernement su xalaat bu majeur bu mel nii da nga koy partager ak ñi nga ilif waxtaan ak ñoom bañu nangu ko nga soog ko mën a mais munoo de façon unilatérale même soo dee président de la république même soo dee ministre même soo dee assemblée jël yenn décisions yi te diisoo ak askan bi. ba ñu nangu ko. kon su ma la déggee collectivité lébu ci ci ci ci pour tàmbali am na nañu kàddu ci euh, lii ñuy wax ne moom lañu ñu bëgg a def. mais bien sûr bien sûr soo demee Casamance. Hmm. bëgg fa jël décision. mën nga jël décision sans sans sans discuter ci avec les populations autochtones. soo demee Touba. bëgg fa jël décision war nga ko mën a jël sans discuter avec les populations autochtones hmm. les autorités coutumières et religieuses ci kilifa dëkk bi lañu ñu bokk les populations yi nekk ci dëkk ba ci lépp luy doxal dëkk ba dañ ci am seen kàddu looloo waral ci aaday tubaab ñu wax référendum ñun duñ ko defee référendum mais dañ koy def waxtaanu penc hmm. dañ koy pencoo parce que décision bi. su amee ngëneel suñu ngëneel la su amee jeexit guy gaañit suñu gaañeel la kon boog naka nga ko mën a décider te concerté woo ak population yi loolu nag yàgg na am Sénégal ñu jël ay décisions yi nga xamante ne ay dafa am ay euh, sous-entendu politique yu ko ëmb. ay sous-entendu politique yi ko ëmb nga xam ne yow sa njëriñal bopp kese nga ci gis sa njëriñal euh, euh, euh, politique kese nga ci gis mais loolu mënul lëkkaloo ak li ñuy oowee ci jamono ji développement durable développement durable mooy nga liggéey liggéey bi nga xamante ne da ngay sóor ñi nga séqal jamono di dundoo ak ñoom ci dënd gi pour décision bi bañ leen gaañ mais ñu ne bul yem ci génération yi nga xamante ne ñoom nga seqal jamono sóoral génération yi ñëwagul est-ce que décision bi ngay jël tey jii ëllëg du nekk ngaañ ci ñoom mm-hmm. loolu mooy jur développement durable mais développement durable pour mu am concertation bi fokk mu yaatu mm-hmm. d'accord nga diisoo avec les populations autochtones mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoo sanc Dakar ñoo ko gor ñoo ko xam-xam ba nga xamante ne xam nañu ne fii dégg fi ne woon fii dex fi ne woon ku fa dëkk su tawee su nawet bi neexee inondation am am na fu ñu jaar ak dëkk ba ba mën ko dëkkee mais nga waxaax képp ku fa dëkk donte cosaanoowu fa nga ubbi concertation yi ba waxtaanaax ña fay liggéeyee te sax xëy na fanaan fanaanuñ fa pour mën a jël décision bu mel noonu mu mën a yëwén mën a amal njëriñ askan bi hmm. waxtaan daal moo gën ci loo gis. d'accord dinañu ñëw ci yeneen aspect yi yaa ngi koy tudd sànq wàllum coopération mun na xañ dakaar en tant que ville lu lu baree bari ndax moromi villam lay jëflanteel waaye ñu des ci wàllu aada cosaan ndax EMAD mi nga jiite itam looloo ko euh, gën a soxal. Euh, sàmm ko mhm. tey euh, bu ñu fi jëlee woon ville ndakaaru ana lan moo mën a na sax ci wàllu aada ak cosaan ñeel waa Dakar yépp <coughs> waaw xam nga suñ fi jëlee ville de Dakar man du may spécialiste ci wàllu décentralisation. mais ci li nga xamante ne xalaat naa ko ci nii tout de suite euh, mooy dañu ne dakaar dafa am xar kanam Dakar tur la mais tour bi euh, jëmb la d'abord c'est un espace géographique ñu tuddee ko Ndakaaru waaw su fekkente ne tas nañ ko en tant que ville ay commune nekk fi kon dañuy am pàcc yi nga xamante ne ñoom ñoo constitué Dakar ñoo fi nekk muy Dakar Plateau. Hmm? Mhm. muy Médina ak ya ca des. les dix neuf communes ñu dañ leen fiy bàyyi. Mhm. wala dañ leen di dañ leen di wàññi def leen ñeent débat bi yaatu na. Mhm. mais kon ku juddoo Dakar fan la wax ne fa la juddoo su dee tas nañu ville bi. xëy na dañ naan ne à Grand Dakar. dañu naan ne à Dakar Plateau. wala ñu ne ne à Yoff déjà effacé nañu tur bi gome nañ ko. loolu de gis naa ko ci. ba keroog ñu may expliquer leneen su fekkente ne tur bi dem na te tour bi dafa ëmb cosaan dafa ëmb démb ndax tur bu ne nag day wax ñu ne dakaar mu ngi jugee ci dëkk raw si olof mooy ndakaaru ngi jugee ci dëkk raw mooy le pays refuge mais su fekkente ni nañ ko en tant que ville tour bi kana koy gàddu. Hmm. ba may lu mu ànd ak moom dem de. foog mu ànd ak moom dem. su tur bi demee nag yóbbaale na lu bëri ndaxte man nag tur boobu du ma nangu ku ko yóbbu nañ ko gome ci kayit yi wante mënuñu ko gome ci sama xol. Hmm. est-ce que xam nga li ma la wax. waaw dégg naa la. Babacar Sadikh Traoré moom la ñuy wax buur Medina. Hmm. dafa mbës jàmbat benn mbir ci man mu ne ku bëgg a duuta sekk la. Hmm. mais kër Mamadou Dia. population yi ñoo ko baptisé woon tuddee ko kër Mamadou Dia. ba tur bi law. naan kër Mamadou Dia kër Mamadou Dia c'était pas officiel. Mhm. c'était un nom que les population avaient donné à cet espace là. Mhm. ñu dem ba ci biir autorité bi effacé tour boobu. tuddee ko kër du ta Seck mu ne su doon moom de day jël grand théâtre tuddee ko guur Douta Seck mais tur bii nga xamante ne bërëb bi population bi ñoo ko ko dippee def ko fay bàyyi ngir worma tur yu Ndakaaru bi aussi noonu la mel mhm. ndax tur day wax te le tour di wax dañ ko foor ba hmm. su fekkente ne gëm nañu aada ak cosaan su fekkente ne gëm nañu patrimoine tour boobu patrimoine la xëy na nag ñoom nee nañu dañuy bàyyi département bi département bi ëpp ëmb ay commune xëy na ñu tuddee département bi Ndakaaru xaw ma hmm. ñoom ñoo xam mais soppeeku daal su waree am hmm. dañu laaj askan bi ana lan la ñu war a soppi man de suñ ma laajoon ne ma lan la war soppi ma wax leen ko. ci Ndakaaru. waaw ak ci réew mi. mooy lan. institution yi fi nekk de askan bi ànduñu ci ay conseil économique ak yi ya ca des c'est une demande sociale suñ ko soppi woon kenn du wax ci réew mi ñëpp naan eskay parce que ñëpp d'accord ne amul njëriñ liggéey ba ñuy liggéey nit ñi gisuñu ko te li muy lekk ci xaalis bëri na ak situation de pauvreté bi réew mi nekk ñu ne xaalis boobu mënoon na faj yeneen pour lan ñu bàyyi ko fi ba tey politique a tax nit ñi nee nañu politique a tax parce que dañu bëgg a caser un personnel politique moo tax ñu bàyyi fi ay institutions yi nga xamante ne boobu bañ ko sosee ba tey nit ñaa ngi demandé ñu supprimer ko supprimer wuñ ko kon kay am nañu lu ñu supprimer. nit ñaa ngi xeex pour jële fi jikko yu bon yi nit ñaa ngi xeex pour changement des comportement changement yooyu la ñu soxla ci réew mi ñu soppi jikko yi ñu soppi doxalin yi ñu ne yëfu ñëpp ci loxo yi ñenn ñu jiital kenn kenn kooku na xam ne du buur du bumi dégg nga li léeboo ko wax. waaw maga ko wax. ñu ne la fi yëfu ñëpp ci loxo loxoy ñenn ñenn ñu daje jiital kenn kenn kooku na xam ne moomul. dañ ko li muy firi mooy ci lépp lu muy def ci lépp lu muy wax ci lépp lu muy dogal day concerté wu moo tax ñu doon waatloo sëriñ Ndakaaru suñ ko falee. Mm-hmm. nekk xamal ne ndawal ndakaaru nga doo buuru ndakaaru. Mm-hmm. xam nga la yu ndaw. mooy l'émissaire l'envoyé de Dakar. ku nu ñu jox la ndombal baat ne la amoo kàddu mhm. kàddu askan bi lañ la dénk maanaam yaay lantinoori askan bi mhm. dañ la naan waxal nga wax ñu ne la waxal lii nga wax loola ñu ne la jëfal nga jëf ñu ne la jëfal lii nga jëf loola. loolu mooy aada loolu mooy cosaan fii ci ndakaaru ak feneen ci réew mi parce que daanaka euh, euh, euh, gox-goxaan yi nekk ci réew mi yëpp ñoo bokkoon gis-gisu àddina te gis-gisu àddina bi mu ngi taxawoon ci lenn mooy pencoo mooy waral penc bi di am garab gu mag ñu fay daje di waxtaan loolu mooy dëgg. alors euh, gis naa itam ne xëy na bu ñu fi jëlee woon Ndakaaru mi euh, en tant que ville euh, mi ëmboon ay communes ak ñoom seen. Euh, lébu gi ñoom dakaar dana des ci ñoom ndax yaa ngi koy tudd léegi grand serigne mhm. de Dakar kooku mhm. ay penc yaakaar naa ni la dajale jaboote leen mhm. Euh, kon Ndakaaru mën na fee jóge officiellement waaye ci lébu gi euh, su ma la déggee Abdou Khadre daf fiy des mais attends kenn mënu ko fi jële ay wax la maanaam xeex bi ñuy xeex c'est pour éviter leen erreur ak gàcce xam nga gàcce gi gën rëy ci kilifa mooy ah waaw nga ne damay rey lii rey naa ko ba pare mu continuer dund nga gis ne du yow yaay rey. fekk newoon nañ la bàkku fa. newoon nañ la bàkku fa dama fiy jëlee lii te mënoo ko fa jële loolooy gàcc kilifa mais mënuñu fi jëlee ndakaaru parce que tour bi yëpp yaa ko wax léegi di hmm. grand serigne de Dakar moom la ñuy wax te grand serigne de Dakar autorité am dafa am lu mu ëmb hmm. ñoom kilifay Ndakaaru loolu dépendrul ci état état dañ ko ne yaxanal ñu liñ fi fekk. loolu lañ demande état euh, Fathiam. Hmm. yaxanal ñu lu ñu fi fekk defar ko évolution nag mën na am. Ah. mais ci concertation ak waxtaan. ñu ne kat attends réew mi ni muy doxee kat ci côté territorialisation ci côté gox-goxaan yi mun na am évolution bu positif mën na gën a baax mën na gën a rafet ñu waxtaan ko suñu waxtaanoon ak nag waa Ndakaaru xam nga lu leen di wax. Hmm. li bokk ci Ndakaaru te ñu dugal ko Thiès te politique kese moo tax ñu boole ko Thiès nañ ko delloo Ndakaaru. Hmm. soo demee jëndeer fa laa jugee léegi maa ngi jaale waa kër jaraaf Alndoy fa la ñu jugee ànd ak grand sëriñ ji ko doon ko dem jaale ji tey dëkk yooyu yëpp lu ci bëri mu ngi ci mu ngi ci Thiès te li waraloon ñu def découpage bi jël pàcc ci ndakaaru yu yaatu boole ko ci région de Thiès politique la woon mm. mais su ñu nee dañu bëgg mu am évolution dañu naan li bokkoon ci ndakaaru te ñu boole ko région de Thiès te ñoom sentiruñu seen bopp ci Thiès parce que ba tey ñu ngi ci kilifteefu autorité coutumière yu ndakaaru nañ ko delloo delloowaat ndakaaru su amoon évolution bu war évolution boobu lañ leen di demander. kon daal tey lébu gi clairement hmm. ànduñu ci euh, li ñu wax ne dañ fiy jëlee ndakaaru mais ànduñu ci grand sëriñ de Dakar wax na ko te sañul wax leneen. Hmm. mais xam nga soo xoolee évolution bi am ci discours bi. Hmm. Aminata Mbengue Ndiaye moo njëkk lancé ballon de sonde bi. waaw. ba ko lancé dafa ne woon dañuy changer statut Dakar am na boroom xam-xam yoo xam ne sax statut Dakar mu toog benn place bon kooku yee koy wax donc gouverneur yore na ko fii et cetera mais ay moment de crise la la crise de 1962 tax na mu am ay changement et cetera et cetera et cetera yooyu yëpp am na bon buñ ko waxee ñu dañu taxaw ne d' accord ñu parce que la mu la mu la mu junjoon moom mooy ne le maire de Dakar euh, population yi dootuñu ko élire. président moo koy nommé. moo koy nommé waaw. ñu ne d' accord ñu ci loolu dañu bëgg kilifteefu ndakaaru loxo yañ koy teg population yi tànnal ko seen bopp. Mhm. ci joŋante bu bu démocratique. waxuñu ne lébu lébu lay waxu ñu ne na nekk doomu ndakaaru bëgg ndakaaru intérêt ndakaaru soxal ko Joseph Gomis nekk na fi maire. Mhm. Blaise Diagne nekk na fi maire. keneen nax keneen nekk na fi maire. ay tubaab nekk nañ fi maire au temps du du du colon et pourtant buggoon nañu Ndakaaru fa infrastructure yu bëri ñu tiitaroo biir Ndakaar marché Sandaga yooyu yëpp maire ba ko fi defaroon tubaab la maire ba ko tabaxoon donc du question na bokk fii wala na bokk fii mais na nekk doomu Ndakaaru bëgg a Ndakaaru waa Ndakaaru tànn ko moo taxoon ba Aminata Mbengue Ndiaye lancé ballon de sondam ñu ne d'accorduñ ci mais tey mbir mi dafa changé couleur tey waxuñu changement de statut dañ ne suppression d la ville de Dakar mu nekk beneen mbir mën na nekk piège nag yootu li gën a kawe pour def li gën a tuuti. Hmm. ne dañuy supprimer ville de Dakar ñu ne non non kenn du ko fi supprimer ñu ne ok supprimer tuñ ko mais dañuy changer statut bi. Hmm, muy la ñu bëggoon def mu juróon coow. la ñu bëggoon def mais kenn du xale ci réew mi d'accord ñu man personnellement ak ñama àndal d'accord ñu ci changement di statut d'accord ñu ci suppression ñu fi bàyyil Ndakaaru. su waree am changement na am large concertation avec les populations concernées ñu xool changement yan la ñuy mais changement yi en bien mu bañ tag tegu ci par par parlo politique parce que évolution yi am dakaar yëpp ba tax ñu jël les villages de Mbijëm dugal ko Thiès ba tax ñu def découpage administratif bi avec les communes lépp ci politique la la lalu woon. bii décision itam da nga jàpp ni ci politique la lalu. ah moom laa gis de ba bañ may prouver le contraire. Hmm. Parce que les gens disent que euh, euh bi maire de Dakar bokkul même bord politique que le président de la République moo indi contentieux bi mais je dis que parce que nos hommes politiques amuñu grandeur amuñu hauteur su fekkente ne ñoom ñëpp liggéeyal dëkk bi moo lañ fi war moo leen fi bàyyi pouvoir ak opposition war nañu mën a ànd liggéey. mën nga bokk boor bee nekk président kele bokk boor bee nekk maire ngeen ànd ànd bu rafet su dee njëriñu réew mi moo leen tax a moo leen di tax a yëngu parce que nag yow kilifa bi ñu jiital da nga war yaatu dënn ñun waa Ndakaaru ñun doomi Lébu ak réew mi en général noonu la ñu gisee kilif def hmm. yaay borom réew mi firiwul na yaa moom réew mi ça veut tu es responsable yaay borom kër gi firiwul na yaa moom kër gi fàccaam su dee dañ la ne borom kër rek nga foog ne yaay borom kër gi juum nga moo tax ci aadax cosaan dañu ne borom dëkk bi mu désigner le chef de village mais ñu ne borom dëkk bi mu désigner rabu dëkk bi borom kër gi désigner le le le le chef de la de la maison de la concession mais borom kër gi signifie aussi rabu kër gi tout ça pour apprendre à la personne. humaine l'humilité hmm. pour que nga xam ne pouvoir bi du yow kenn yaa ko moom hmm. am na borom dëkk bi wante am na borom dëkk bi hmm. am na borom kër gi wante am na borom kër gi moo tax soo demee ci ci ci ci ci ci woykatu euh, lébu yi am na benn profession de fois bu ñuy wax bu am solo ñu ne yàllaay buuri buur yi amadooy buuri mindeef yi asamaanay buur bi mbaar suufey buuri lay taay màkkaay buuri jullikaay pour apprendre à l'homme l'humilité donc le président de la République peut être d'un bord politique d'une idéologie politique ànd ak un maire qui est d'un autre bord politique d'une autre idéologie politique ñu ànd liggéey parce que borom réew mi moomu réew mi nag il est le responsable le premier responsable démb ak tey ngeen di teewlu ñuy dalal njital EMAD euh, Abdou Khadre Gaye waxtaanee ndakaaru ak euh, jële gi ñu wax ne bëgg nañ ko fi jëlee sànq yaa ngi mhm. wax euh, li ñu war a soppi ci réew mi ne bu ñu la laajoon xëy na yooye lay doon nga lim ca jële fi yenn institution yi nga xam ne skan wi ñenn ca ñoom jàpp nañu ni amut njariñ waaye mhm. ndakaaru mi ak ma woon démb itam am na kuute gu bari gu ci am mhm. xëy na ma woon démb gënoon naa yaatu amoon na espace amoon na ay garab ñuy nooyi fi mu ne nii dagg garab la ñëpp di coow ndax euh, tali yi nga xam ne bëgg nañu koo yokku BRT bi ñëw euh, woowale Ndakaaru ak wii tey euh, wuute gi Abdou Khadre bu ñu doon soppi li fi ne tey ngir xëy na am wu gën a ñoŋ lan lay doon ci sa xalaat. xam nga ñun nitu tey ndeysaan tubaab bi daf ñu wàll jikkoom nous sommes devenus individualistes l'individu est une invention de l'Occident l'individu privé qui ne passe pense qu'à son intérêt personnel qui ne pense pas à l'environnement yëgul garab gi ci kër gi yëgul yëgul tefes gi l'individu privé soo ñëwoon fii ci ndakaaru démb baax barki démb ci Sénégal démb baax barki démb euh, euh, suñu ne Abdou dañu naan rakki diw magi diw doomi diw xariti diw sa individualité dafay dañ koy seeyal ci groupe bi. Mm-hmm. ba xamante ne yow amatoo solo te lépp looy jëf dangay ngay sóor groupe bi mm-hmm. sa échec échec groupe bi la sa gàcce gàcce groupe bi la mm-hmm. te Abdou Khader suy yëngatu dafay sóor famille am waa quartier am sóor environnement bi moo tax suñu waroon góor garab dañuy tàggoo da ngay justifier lu ko jar. bu mu óor ne garab bi kat deem gi ko rey gi nga koy rey ah bénéfice la ci communauté bi nga am soog am soog am droit soo koo gor noonu la nit ñi doon gisee donc su fekkente ne léegi une communauté quelconque dafa tas nekk ay individualité privée ku ci nekk sa bopp nga yëg ak sa biir ak sa bëgg-bëgg ak sa intérêt mu am ay groupe mais des groupes d'intérêt bokk naa ci parti politique bi parce que sama intérêt privé sama njëriñ privé laa fa gis donte damay rey nit pour njëriñu parti bi dama koy def dama bokk ci association bi parce que sama intérêt privé ça c'est une invention de l'Occident et invention boobu moo ñu lor moo ñu moo ñu moo ñu lor moo tax li ñuy jooy doon jooy sàq mu am ay réformes yi ñuy jël fekk réforme bi sóorul intérêt génération yii tey mais sóorul intérêt génération yi ñëw ëllëg gis nga loolu li muy joxe. donc loolu mooy changement bi nga xamante ne moom la Occident indi fii ci Afrique jaarale ko ci colonisation ba tey ji mooy suñu góom bi gën a rëy mag ji dañu doon wax ne géej géej géej gëlaway bi dajee géej gi rëw ce sera la fin du monde pour dire ce sera la fin de la presqu'île du Cap-Vert ñu ne kon naka la ñuy def ñu ne nañ préserver environnement bi nañ arrêter érosion côtière bi suñ ko arrêter ci tefes gi arrêter ko ci tefes gële ñaari géej gi du ñu daje te presqu'île bi dina fi sax ñu ne naka la ñuy def ak géej gi ñu ne képp ku napp jën boo musul gis delloo ko ci géej gi ñu ne pour lan ñu ne parce que espèce bu bees la wala espèce bu nekk en voie de disparition hmm. ñu ne yeneen mbindee fa ngi fi wëruñu muy garab gi muy gàncax gi buy picc bi mais tey xooloon au niveau de la presqu'île du Cap-Vert xoolal Ndakaaru kuk silmaxa amoo fi place su may doxantu ci ci dëkk bi hmm. dama naan naka la silmaxa di doxantoo ci dëkk ba nga xamante ne tous les regards du sàcc nañ ko su tawee ndakaaru mu fees fees ga nga xamante ne ku am ay bët sax mën nga lap ci taw bi waxatuma ndax silmaxa tey dëkk bii di dakaar képp kuy handicapé même forme handicapé bu mënti doon amoo fi place parce que bu ñuy defar dëkk bi sóoruñu les personne handicapées tey jii fàccaam ci ndakaaru màggat yi dañ leen tëj seeni néeg parce que les personnes du troisième âge mënatuñu doxantu ndakaaru dañ leen di tëj tey ku am xale bu ndaw da nga koy tëj parce que amul xale yi amuñu place ndakaaru te nag ndakaaru gawoon hmm? mhm. mag ñi dañ fa am place xale yi am fa place silma moo taxoon abbi boilaa ca téeréem ba mu ne dëkk bi amul yolwaankat hmm. dëkk bu amul yolwaankat parce que nit ñëpp ñoo yem dof yi sax ci biir dëkk bi ils se sentent à l'aise. ci Dakar la doon wax. Ndakaaru gii la doon wax. Habib Wala mu ngi ci esquisse sénégalaise jàngal nappkat yi jëm giir géej suñu teeree ci tefes gi dañuy séddale jën képp ku taxaw ci tefes gi séddale ñu feebar ba mënuñu gétti ba suñuy ñibbi dañuy sànni ay jën ci tefes gi ñu ne tubaab bi ne leen mais jën di ngeen di sànni ci tefes gi nag ñu ne xëy na am na kuy ñëw suñu gannaaw am soxla te mënul ñaan su ñëwee jël ko. kii soor ba soor le pauvre avenir di ko bàyyil jën ca tefes ga xam nga ne kooku soor na ñëpp c'était ça la ville mais aujourd'hui l'individualisme a gagné di terrain ba kenn xajul ci ville bi ville ba su baaxoon ba baax picc yi sax dañ leen di sóor fàcc am mhm. pose question mhm. picc ndakaaru yi ñoo soon na mhm. waaw jaaral avenue Blaise Diagne timis nga xool ñaari espace la picc yi am ndakaaru tey fu tey jii mm-hmm. maison de la culture Doudou Seck njugub yaa fay yaa fay fanaan cimetière des abattoirs baaxoñ yeex céel yi ñoo fay fanaan mm-hmm. amatuñu espace bu ñuy évoluer mm-hmm. kon ñooñu dañu leen a mais une ville c'est un tout. Hmm. gaa bi fii ci ville bi lañu ñu bokk di wala. dañ leen seen place jëlal yaa ngi wax garab. Hmm. demal Jean Jaurès angle Pétavin nga wàcc. Hmm? ba avenue Malick Sy doo gis garab. jeexal nga commune Plateau nga dugg commune Médina continuer même avenue bi de. avenue avenue Blaise Diagne bi nga traversé ko ba canal ba doo gis garab jeexal nga Médina. c'est-à-dire nga tey jël benn avenue nga traversé ñetti commune doo gis garab loolu dëkk la su ñu amee lu ñuy changé nañ changé loolu nañ delloo si garab yi Dakar su amee lu ñuy changé ah canal Fass kanaal canal Gueule Tapée à ciel ouvert ou en plein cœur de la ville c'est une balafre sur le visage de Dakar nañ changé loolu su amee lu ñuy changé tout euh, ndox yu salte yi ñuy sànni ci géej gi te kenn du ko traité nañ ko arrêté ba ku dox ku doxantu ci képpi corniche bi air pur nga doon aspirer am aujourd'hui c'est de l'air pollué toute notre plage est polluée géej googu ku fa sangu yaa ngi sangu ci loo xamul parce que la mer et polluée nañ changé loolu hmm. ñi gan yi ñëw Dakar suñu duggee sa Dakar xam nga li ñu a wax hmm. la mauvaise odeur de Dakar une presqu'île ñun suñu bakkan ni daf ko miin ñi dëkk Dakar ba xeeñatuñu nañ delloo à Dakar sa bonne odeur au temps du xam lu ñu doon wax. Hmm. la brise maritime l'odeur des arbres et des fleurs parce que c'était le Cap Vert. Hmm. attends ki ko jox turu Cap Vert bi juumul dafa traversé géej gi gis fépp nekk désert bu mu ñëwee fii verdure bi moo ko jaaxal mu tuddee fii c'est le Cap Vert parce que c'était vert des baobabs. waa ji naan des arbres de toutes formes des des des des oiseaux de toutes couleurs des fleurs à plus finir soo duggoon Dakar xeetu xeetu géej gi ak xeetu garab gi moo ko doon distingué. tey de bokk na ci ville yi gën a salte. mais suñu bëggee changer nañ changer loolu. Hmm. alors Abdou ñu des ba tey ci loolu euh, colon yi nga wax ak. Euh, hmm. euh, ni ñu yore woon Ndakaaru démba dafa indi ci sama xel lu ma mës dégg ci benn mag mu ni ma. Euh, Dakaaru dafa yàqu ba ko sénégalais yi yore waaye ba mu nekkee mhm. ci loxol tubaab yi melutoon nii mhm. da nga ànd ci boobu xalaat wala gis-gis euh, du ma du ma ne tubaab bi laa préféré waaw kooku sañu ma ko wax parce que nit ku nekk nag da war moom sa bopp tubaab bi lu mu fi defaroon ni defaru ko woon pour ñun dafa tabax port pour mën jël suñuy suñuy ressources yóbbu ko dëkkam mhm. dafa tabax aéroport pour mën dafa tabax ay tali pour mën a lim mu defar yëpp boppam la ko defar defaru ko population yi donc mbaax googu du baax wante daal dégg naa ne am na mag ji waxoon ne indépendance kañ lay jeex. ah. ah am na mag bu ko waxoon dama lay laaj kañ la indépendance di jeex xam ban homme politique la woon moo doon def meeting di wax di wax di wax di wax mu jël parool ñu foog ne day laajte mu ne man de li may laajte mooy indépendance suñu gan gii kañ lay jeex kooku amoon na sentiment que liggéey ba ñu waroon liggéey. defuñu ko. Ahmadou Kourouma aussi bind na la soleil des indépendances. un soleil trompeur jant bu fenk nga foog ne da lay leeral nekkate yoo jant ba lënd guddi la lay tuur xam nga jant buy indi lëndëm moom kenn du ci sawar. dafa mel ni suñu indépendance bii nag jant bu kooku la. parce que si jamonoy tubaab bi. gis nga fi Abdoulaye Diop Matar dëkk. Hmm. këru directeur SONES la woon même après les indépendances. Euh, foofu Euh, pompe yi nga xamante ne ñoo doon pompe ndoxu géej gi pour raxas marché Dakar yi ñoo fa nekkoon. d'accord ak tali Dakar yi au temps du colon. Mm-hmm. dañu doon raxas chaque jour tous les marchés de Dakar Kermel Sandaga Tilène dafa am heure d'ouverture heure de fermeture. ah oui su ubbee tëj mu tëj gars yi ñëw indi pompe yi nettoyer marché bi tous les jours tali bi dañ ko doon bale ba pare raxas ko ak ndoxu géej. infrastructure boobu amul. man bi ma nekkee xale. dugg naa train ndakaaru ba ndar tey ban train ngay dugg mu yóbbu la ndar donc les gens ont l'impression que depuis l'indépendance au lieu compte dëkk bi dox dëkk bi dafa dellu gannaaw. dellu dafa xat dafa tilim dafa salté Dakar amul organisation occupation espace bi c'est c'est c'est anarchique Dakar est devenue la tête trop grosse d'un pays qui s'appelle le Sénégal. Mm. nañ defar yeneen gox yi réew mi pour nit ñi mën fa toog nañ defar Dakar ok tous bon y de choses à faire moo tax su may déggee yenn réformes yi j'ai envie de pleurer hmm. parce que j'ai l'impression que ñi nga xamante ne ñoo ñuy jiite te ñu bàyyi farata di julli na xam nga soo ñëwee julli goo tisbaar pare ngay julli ñaar raak ma ne loolu nga ne damay naafi la <laughs> ndax xam nga fàccaam di nga ma jaaxal nag hmm. munoo mayee te amee bor munoo naafi la te julliwoo farata dafa mel ni nag loolu la ñu nekkee balaa ñu ñuy naan dañuy changer dakaar nañ am lu ñu régler ci Ndakaaru ba pare mu yooyu ma la limal. Hmm. te mën nañu yokk liste bi nag. donc diggante ba fi tubaab bi nekkee ax ah tey ah Ndakaaru dafa évoluer mais négativement hmm. mais xoolal infrastructure yi fi nekk limal hmm. limal hôpital Dantec tubaab bee ko tabax. li man hôpital principal tubaab bee ko tabax mhm. canal yi ma lay wax ni ba nekk à ciel ouvert tubaab bee ko defar mhm. université de Dakar tubaab bee ko defar de la Fosse tubaab bee ko defar euh, Van Vollenhoven tubaab bee ko defar et cetera li mal continué li mal marché Sandaga tubaab bee ko ah. defar marché Tilène lépp fi lañ ko fekk li mal tey ba suba place de l'indépendance xëy na defar nañ ko y a pas longtemps bon mais attends euh, def comparé ko avec place de l'indépendance ba fi newoon demal tali bi may tuddee la reine des rues de la capitale du Sénégal muy avenue William ponti ba ñu nekkee xale mais attends yàkkamti nga am gan ba traversé avenue boobu. Hmm. c'était les Champs-Élysées tey demal demal demal avenue William Ponty da ngay rus demal Dakar. Hmm. à 500 mètres du palais de la République y a des maisons qui n'ont pas de de d'égout amuñu branchement à l'égout attends suñu bëggee liggéey vraiment am na ñu ñuy liggéey. kon daal ñun ba ñu jotee ci réew mi euh, jot ci capital bi nga xam ne mooy xar kanamu Sénégal euh, defuñu fi dara ci. waaw ah, impression boobu de la ñu am mel na ni defuñu fi dara. Mm. mel na ni defuñu fi dara Sandaga ngi ne kañ la lakkoon ba tey décharge sauvage la mu ngi noonu taxaw. ah jëlee woon nañ leen fan dañ koy defar. waaw dañ koy defar ba tey defar guñ ko parce que nee nañ dañ koy màbb ñi ne leen doo leen ko màbb parce que patrimoine hmm. patrimoine kenn du ko màbb dañ koy dégrade parce que acte bu ñuy posé politique la ñuy jiital xam nga le problème de l' Afrique quoi hmm. naka la ñuy jëlee nguur ak naka la ñuy bàyyee nguur ku jël nguur gi foog na ngay saalal la. ku jël nguur gi foog nga ne xalifa la sa doom la war doon Abdoulaye Wade moo doon président tey nee na doomam moo war nekk président Macky Sall mooy président mooy goroom ak doomam ñoo war nekk président donc ku jël nguur bëggatoo dem c'est ça malheur de l'Afrique mm. du Sénégal en particulier d'accord alors moo tax mhm. suñuy poser acte acte bi du par rapport ak bien-être population bi mais par rapport à la conquête du pouvoir ou à la préservation du pouvoir ku nekk opposition suy attaqué Macky du du du dëggu ci attaquam Macky deful dara lu baax le pouvoir deful dara lu baax tout est mauvais parce que da nga ko bëgg a jëlee jël place am moom mi farax président tam lu président def yëpp baax na parce que dafa bëgg a conserver pouvoir et alors que c'est pas ça l'objectif c'est de servir les populations c'est de servir ce pays L'objectif, c'est de conquérir l'immortalité à travers les actes qu'on pose. Mhm. alors léegi EMAD ak euh, collectivité Lébu xam nañu seen diggante ak euh, Grand Serigne est-ce que am na ay jéego yoo xam ne nar ngeen ko dox euh, ci proposition bi bu weesoo xëy na fësal ñàkk ànd gi. non commencé nañ ko depuis Aminata Mbengue Ndiaye on avait fait une grande assemblée générale bon prévoir une tournée pour dire pour faire entendre notre voix. et dire que nous ne sommes pas d'accord avec le changement de statuts bi ñu prévoir bon tey c'est la suppression de la ville de Dakar mais on va dire non on va dire non parce que dañu xalaat ne ku bëgg dimbali kilifa bu ñu dénk mbir danga koy wax sa xalaat mu boole xalaatam looloo koy permettre que xalaat bi évoluer épouser ambition yi population yi ñu tàcc ko Donc, en le faisant, c'est notre façon de soutenir euh, le gouvernement actuel, lui faire entendre la voix des populations. Nous ne sommes pas d'accord. Hmm. ñu fi bàyyil Dakar te laaj ñu nag lan la ñu bëgg a Dakar hmm. suñu ko laajee ñu ànd ak ñoom def ko ñu bale Dakar ba mu set defar marché yi ba mu rafet kutal ko heure d'ouverture heure de fermeture jëmbataat garab yi hmm, defaraat yeneen gox goxaani Sénégal yi ba Sénégal yëpp du ñu màbb ñoom ñëpp bëgg a dëkk Dakar etc., etc. C'est ça le développement. C'est des choses tellement simples qu'on leur demande. Alors, et la population est prête à faire ça avec ñoom. justement population boobu tey lan mooy seen wàll euh, ci tolluwaayu Ndakaaru ak changement yi nga wax ni moom la ñu war a def. xëy na ngir am ndakaar mhm. goo xam ni euh, dana am kanam gu méngoo ak dayo gi nga xam ni am na ko bu ñu xoolee histoire am. waaw mais xam nga population su demee ba gëmatul njiit ya ko jiite. waxatuma njiit yi mais dafa dem ba gëmatul classe politique bi waxuñu dëgg ñoom ñëpp a yem dem nañ ba léegi soo ne nit nit ki da ngay politique ça veut dire su nit waxee yow pare nga ne ko yow daal da ngay politique rek li muy firi. Hmm, mooy ne waxoo dëgg. su jigéen takkee ay takkaay nga ne ko yow de lam nga takk lamu politique la ça veut dire <laughs> dafay niroo niroo lu or wante du or. Hmm. donc nit ñi dem nañu ba gëmatuñu politique maintenant suñu gëmatul politique gëmuñu homme politique yi mënatuñ la yëngal mënatuñ la yëkkati hmm. dañuy defi politique pour am ci njëriñ. képp koo gis muy xataraayu ci politique bi c'est parce que am na benn intérêt personnel bu muy courir population yi su àggee foofu nag li dal réew mi tey moo ñu dal tey les pêcheurs du Sénégal sont organisés dans une association qu'on appelle UNAPAS musul am pour dire que dañuy xeex pour ñu sàmmal ñu suñu géej dañuy xeex pour ñu sàmmal ñu suñu métier la jeunesse sénégalaise massivement ñu ngi dugg ci ay gaal di lap ci géej gi di dee mais désespoir fàcca mënul àgg foofu c'est-à-dire que population yi fi seen xalaat nekk ak fi seen soxla nekk ak ni autorité politique yi di réfléchir bokkul institution yi nga xamante ne moom la ñu wax ne moom la ñu bëgg a créer pour régler le développement c'est pas ça la priorité des populations il y a des urgences les urgences c'est quoi soo demee bunti hôpital Dantec wala bunti ko fa fekk mm-hmm. nit ki ñëw indi sa malade ñu laaj la xaalis boo amul nit ki ñëw indi sa malade ñu ne la yóbbu ko bitim réew parce que mënuñu mais attends euh, ur urgence xam nañ ko nañ déglu population yi te toppatoo loolu mooy farata bi aujourd'hui c'est le désespoir la càmm mhm. neexul dégg mhm. mais nag projet bépp bu am dina am ñu taxaw ànd ak président wala ka porter projet bi di ko défendre mhm. di ko défendre défendre ko bon comme ni ngay supporter sa équipe sama équipe moo mën suñ ko gagné dañ ko liggéey suñ ko gagné wul dafa ñàkk sens kërëng kërëng mais affaire bi du match football c'est pas une compétition sportive il s'agit de faire survivre un peuple il s'agit de sauver une jeunesse qui est de mourir qui est par le désespoir Fathia hmm. ku bëgg a tekki jaral génn réew hmm. soo ko téye ci réew mi mu def fa musiba hmm. demal nga déglu xale yi déglul discours bu ñuy tenir déglu discours bi ñu tenir nga xam fan la réew mi toll mais j'ai l'impression que nos autorités politiques ils ne vibrent pas au même rythme que le peuple su fekkonte ne ñu ngi yëngatu au même rythme que le peuple dinañu xalaat yeneen liggéey dañuy supprimer ces conseils économiques la nit ñi tàccu ñu supprimer toutes ces institutions budgétivores nit ñi tàccu ñu wàññi le nombre de ministres nit ñi tàccu ñu gën a structurer euh, le gouvernement mobiliser les populations autour de l'essentiel nit ñi tàccu c'est ça la priorité mhm. mais il ne s'agit pas de de compétition politicienne Khalifa Sall du fi nekk maire de Dakar wala Samba Ndiaye du fi nekk maire de Dakar loolu ñu li ñu yitteel nit ñi mooy nañ fi teg kuy liggéey nañ fi teg ku gëm dëkk bi nañ fi teg ku bëgg dëkk bi nañ fi teg ku xam dëkk bi parce que mënoo jiite dëkk boo xamul malheureusement actuellement no hommes politique partout à travers le Sénégal erreur boobu lañu ñuy def même tubaab bi bi muy coloniser foofu la jaar les carnets de de de de Yoro jaw lañ moo ko waraloon c'est parce que tubaab bi dafa bëggoon xam réew mi ñu mobiliser Yoro jaw jox ko ay mooy mu bind les carnets ñu yónnee ay ethnologue ay sociologue ay façon bu ne ñu ñu jàng dëkk bi ba xam ko hmm. moo tax ñu mën ñu noot mais soo bëggee jiite dëkk tam noonu nga koy xamee. Fathiam mën nga nekk benn citoyen ordinaire Abdou Khadre Gaye citoyen ordinaire mhm. mais soo demee ba aspirer à diriger une commune mhm. wala à diriger un pays il faut faire l'effort de connaître dans l'âme ce peuple et ce terroir là mhm. soo ko deful mënoo ko jiite moom moo tax ñuy jël ay décisions yi nga xamante ne day day day tas dëkk bi lan moo taal Casamance Fathiam lu taal Casamance ay erreur d'appréciation yi ay homme politique def la bu population boobu mer ne reconnaître ñu suñu bopp ci Sénégal dañuy laaj indépendance. gisatuñ seen bopp ci ni muy doxee. gisatuñu seen bopp ci réew mi ni muy doxee mais c'est des erreurs de casting des erreurs politiques léegi nag suñu autorité yii suñu cuune cuune bu day noonu ñàkk xam réew mi ñàkk respecter réew mi attends xoolal suñu corniche fii les lieux de culte yi nit ñi doon lébu yi doon dem yëpp euh, occupé nañ ko hmm. bés ba ne nga gis mag bu jooy mag bu jooy pourquoi. parce que dañu piétiner gëmam dañu piétiner héritage am am na benn om politique bu ko feexoon bi ñu ne dañuy toj cimetière abattoir yi le discours qu'il avait tenu la bàyyi ñàkk des eaux pourries discours boobu di homme d'état dina ko wax hmm? Hmm. nit ki jël benn suuf suul fa maamam suul fa baayam yow nga ne suuf si ay yax yu nëpp ñoo fi nekk nañ ko raatale def fa hôtel alors que même tubaab bi ñu colonisé woon dafa doon respecté yooyu hmm. pour pouvoir être en paix avec les populations chaque fois qu'il y a eu rébellion c'est parce que tubaab bi laal na la mu warul laal loolu nag du tubaab rek lay dal bépp buur lay dal bépp kilifa lay dal képp ku ñu dénk ne yoral ñu suñuy mbir nga foog ne yaa ko moom da nga ciy def loolu la neex bës di nga jàkkaarloog population bi et suñu continuer ci rythme bii bu ñu déglu population yi respecté wuñu population yi am arrogance ci seen discours même suñu dégg naa euh, seen technicien bu ñu yónni ci plateau télé yi muy muy programme bi mais soo gisee arrogance bi ma gis muy waxee mais dama tiit mais parce que soo dee autorité nga comprendre sax lu sa askan comprendre mhm. nangul ne àgguñu à ta hauteur nga def preuve d'humilité daan ne réforme bii kat ñoragul ci xolu population bi kon naa ko teg ci suuf mhm. ba ñu antan ko ma soog leen ko jox ne mm-hmm. nga taxaw avec arrogance comme si tu étais l'envoyé de Dieu pour dire ne man maa xam lan moo baax ci dëkk bi maa koy def mais on l'avait di tout ce que tu fais pour moi cent mois tu le fais pas pour moi. te Ndakaaru gi ci la bokk. attends <laughs> waxuma Ndakaaru mais jëlal ñaa cokkeer sax mënoo fa dugg def lu a neex jëlal Rebeuss wala n'importe quel quartier sur le territoire national mënoo fa dugg def lu a neex. da ngay ñëw ne ana borom borom dëkk bi ana chef de quartier ñu ne la mu ngi nii nga ne imaam ana imaam buy tudd euh, liir yi. Hmm. di jullee nii ñu ne la mu ngi nii. nga ne ana borom kër yi ñu ne ñu ngi nii nga waxtaan ak ñoom. Hmm. ba ñu wax la ne kat suñu soxla lii la suñu farata lii la suñu priorité lii la maintenant on avance par ordre de priorité. Hmm. on a de priorités dans ce pays la où tout est urgent la première des priorités c'est cette jeunesse désespérée. bu gëmatul dara gëmatul kenn même imam bi xutba ci dëkk bi léegi nit ñi benn nopp lañ koy dégg gëmatuñu xutba gëmatuñu waaraate c'est dangereux que kilifa yi ñoo nekkatul fa ñu nekk ñiy waaraate dañuy politique di tricher ci seen waaraate di wax lu arrangé buur wala di arrangé parti ba ñu nekk ñiy politique di wax lu arrangé ku nekk wax li ko arrangé fu jëm ana dëgg ana dëgg nag mooy nga respecté suuf si nañ respecté ndakaaru respecté Thiès respecté Kaolack nañu respecté ña fa ña ko sanc mm. respecté ña fa dëkk ñëpp ak ña fay liggéeyee di diisoo ak ñoom di waxtaan ak ñoom loolu mooy dëgg. Mm-hmm. jërëjëf Abdou Khadre Gaye amoon nañu mbégte lool dalal la ci démb ak tay bi doon waxtaane euh, ville yi rawatina ak Ndakaaru mi nga xam ni euh, dañu ko fee bëgg a jëlee euh, mu toll nag ci ay waxtaan doon ñëw ci cosaan li ak xëy na ngaañte yi mu mun a am ci wàllu aada ak cosaan ndax li mu ci ëmb bari na lool moom Dakar li dox itam digganteem ak collectivité lébu bi ñëw nañ ci bu baax a baax ngir njiital emaat gi nga doon te ñu xàmmee leen lool ci sàmm aada ak cosaan rawatina ak gi Abdou Khadre lool dalalaat la euh, ci dem ak Tay ci Rewmi FM <coughs> jërëjëf. jërëjëf. kon mbokki euh, seen émission Demb ak Tay la woon ci Rewmi FM ñu leen di gërëm yéen itam bu baax a baax ci déglu bi gërëm Diawa Diallo mi fare woon ci jàppandal gi ci am Ngom la woon ci kàddu gi ñu dox leen kon mbokki euh, li nekkoon